Assalamualaikum. Ya maa ngi nuyu gaay di ziar euh, ngi ziar leen bu baaxa baaxa baax euh collectif and samu jikko yi la

Cheikh Omar Diagne. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw Abdou Karim ñu ngi ziar a baax. ñu ngi ziar. waaw mais ñëw bi wareef la. Uh-huh. wareef la ndaxte ku euh, ñuy wax Soya Soya Diagne. ñu ngi koy jaajëfal bu wér a wér. taxawaay bu am solo bu am ci biir nag. Mm-hmm. yëgal na Sénégal. Euh, collectif bi nga xam ne ànd nañ def benn commande mm-hmm. ci ay t-shirt yi nga xam ne yu waali soloon yu t-shirt du quotidien yi mm-hmm. ñoom commandé nañ ko depuis France andi Sénégal pare fas ñëw fii voté nañ nañ ñëw pour soutenir Wally parce que saaga yi saaga dafa bëri mhm. waaye xam nañ ne derrière soutien boobu du soutien waaye organisation LGBT yi nga ne ñooy jigéen Sénégal mhm. ñoo si bëgg a profité am ay ne mhm. xool koy su Sénégal yi jigéen tase fi su ko ay ay fan club Wally Seck mën a taxaw Wally Seck pour def ci soirée ma kon ñun ñoo jaxas bi aval nañu góor jigéen Mhm. li yëg naa ne ñun loolu duñ ko nangu dara la mhm. ñu gën duñ ko nangu quoi tax ma ko nangu ñun fii nii bu gaay bu wax yi moom fii bu dee daf dëgër dafay bàyyi gaay ñoo toog fii fii lay taal foog mu leer quoi ñoo ko defal bopp war ci xaar état mhm. li islam daf ñu ko sas suñu askan ñu ko as suñu euh, euh, tradition ñu ko nangu mu leen jaral nag jaral ñu ko waaw Cheikh Omar waaw par arme bu waaw ñu bu baax ci wax bi daanaka mat na man sama wax day gàtt dañuy vérifier fu dee loolu am dañuy am fulla bu toll ni ñoo jël seen t-shirt drapeau góor jigéen ñun buñ jëlee ay centaines ay milliers de personnes dañ dem di seen i percal bu ko defee ñu dëggatal leen sur leen deret bu bëri tuufi loolu soog fee am senegal moom ku fi bëgg a dooleel góor jigéen deret gay bëri rek waaye du fi am donc loolu moom nag na gàtt te clair loolu nag la ñuy vérifier ak ki nga xam mooy directeur bu bokk di jàmm ak salaam ñun jàmm nañu xam salaam nañu xam fekk ñu ngi bëgg jàmm. waaye bu ñu bëggee xeex it ñun pare nañ bu yàgg ndax suñuy testament dañ ko bàyyi ca kër ga sonn. maa si dolli am tey jox nañu soxna euh, directeur bërëb bi ba wax ko projet bi nga xam ne ay fans ay ñu bëggoo fans club Wally am nañu ci bëgg suñu yére góor yi ñu defal sol sargal sargal wax nag nee na bu naree andi coow coow ci fii il préfère rompre contrat ak Wally Seck ba Wally Seck du fi tëggati ñu ne dañoo bëgg sax Wally bàyyi tëgg fi sax dañu am lu leer léegi la am lu leer léegi ko dal waaw donc yi ko déggandoo noonu la tey ñu ngi foog euh, collectif yi euh, tey bunt nii pour xam lu leer parce que dafa am loo xam il faut mu leer ngeen xam ko mu leer amul xaaral ma dem te ñëw cest à ce qui est sûr et certain mooy góor jigéen moom bu ndaree libre fii Sénégal suñu kaw koor yi lay jaar dañuy dee dañuy rey ba pare après soogay ma doon góor jigéen Sénégal lépp mu aajo woon rek ak képp kuy défendre Wally Seck ak statut bu mënti am Sénégal ñun ñun xeexuñoo ak Wally Seck góor yéen Sénégal te góor jigéen bu am baat Sénégal il faut mu leer ku ñu jàpp nga nekk góor jigéen dañ lay rey waxuma maanaam góor buy jigéen jigéen lu dañ koy rey am ay négociation ni ko yonentu yàlla moom lañ koy defee négociation loolu dañ koy wax la dañu wax naan xam ñun dañu ñëwoon sax combat bi duñ ci si parce que fa am ci pétrole yi a affaire yooyu mais ma ne pétrole bi mënuñu ko jëriñoo am na pétrole noppi teg ko si yoonu doom yëpp ne ay góor jigéen fan lañ jëm maintenant dañuy boole combat yëpp benn mais laaj bi mooy góor jigéen doon baat Sénégal te lépp lu mën dañ ko def gis naa nag ay góor jigéen yu taxaw di defaan Wassek ay audio sexuel di tuité di defaan Wassek ay góor jigéen di di di posté di défendre Wally Seck ay imam ñoo ni porte plainte ndax Wally Seck affaire homosexualité mais ñi ngi bëgg a ñàkk fayda nag quoi te yaakaar naa dafa war a leer léegi ñu ngi vogue vogue ñu ngi vogue vogue ngi nii ñu ngi nii gis ngeen ko vogue ngi nii ñu ngi nii vogue lii direct la dañuy dugalee gis directeur mu leer naññ dina leer naññ bu fekkee ni dëgg la bu fekkee ni dëgg la ah Wally Seck ak ñi mu àndale ñi ak moom ñëpp ñu ngi xaar tey fii xam na góor jigéen dina fi taxaw def soirée fi Sénégal sunu bakkan lañ lay jaay billaahi wallaahi sunu bakkan lañ lay jaay bañ ñu ci ba dee fi góor jigéen du fi baat mu dee tëdd sunu bàmbeel ba pare après ngeen soog a dooleel góor jigéen Sénégal bu ñu dee ba tëdd sunu bàmbeel après ngeen dooleel góor jigéen Sénégal quoi ñu dugg ñu ngi nii di dugg biir foofu te loolu góor mu mais est-ce que mën nañu am plus de renseignement par rapport ak yi am fii soirée yi am fii nii. Waly euh, Seck day tëgg fi doon tëgg mais wóoruma tëgg na fi tëggul dimanche soirée tëggul ok parce que dañu dégg dafa am góor

loolu waaye surtout góor jigéen ñi ci boppam dañ t-shirt bii mu t-shirt bii mu sol surtout jigéen surtout góor jigéen yaa ngi ni poste baa ngi nii ñu posté ko nii Sénégal feete ñu feetaay feetu góor jigéen yi waaw feetu góor jigéen ren feete nañ ko à leur manière daal di woon photo Wally Seck daal ko sargal dañ ko sargale nag saagawaale nañu Sénégal yëpp daa wane nañ wane nañ Sénégal dëkku diine bi bi ngeen dégg léegi nangu nañu ngóor jigéen nangu nañu ngóor jigéen léegi nag loolu ngeen garde ko ngeen woon ko seen patron ni ko kii xam mooy mooy sarga ba góor ngeen di ko félicité moo fi tëgg te duñ nangu léegi bu ko nangoo moom dañuy jàpp ni moom boo pro gay la maanaam bois bi droit buy defal promotion gay di leen jàpp encouragé bu boobaa moom it dañ koy bale ci am na ci dégagé ay defar waaw léegi ñëpp ko dañ nag waaw am na ñoo xam ne sax seen waaw dëgg la góor jigéen jaajëf jaajëf. waaw jërëjëf waay. jërëjëf moom. jaajëf waay. mbir mi lan la. dañ koy may fii ba suuf. dafa gaaw. na préparé xam fii kon trouble mën na fi am su fekkee góor jigéen dañuy fekk. xam nga kii dina jël arrêté am. jàmm bind na ci site yëpp. nekk na ko tëral na ci site yëpp. bu bi bakkan yi. yow yaa xam nga sa seul responsable. saa yëpp. préfet Dakar. mooy responsable responsable. respect Sénégalais war a war a war de jeunes seen ils se sont portés garant ñoom suba incha allah ba fii bi ñëw fii lañ koy taal. Seydina Mouhamed koy rey. billaahi il faut message bi leer. c'est très simple. yeneen tur ko nag même yeneen religion yi dañuy yàlla wàcc ci ñoom ba fii ñu toll nii nga bëgg koo màbbal weesuul nga taxaw ñu day doole góor jigéen sol drapeau góor ko nangu waaw dañu dóor dóor yar suñu doom yi ba ñu toll nii dégg nga ñoo am ay koom-koom ay ay yu ñàkk fayda ak xaalis ñàkk fayda yi ñu lay xoy nga a sacrifier sa bopp libre nga ci waaye di sacrifier waale Sénégal boo ko naree def ñun waaye suñuy doom lañ doon bàyyi kenn sacrifier ko leen nar a sacrifier sacrifier léegi nag li ci solo mooy jàmm gën ay nañu dellu ci ginnaaw Tanor gi na jël ay responsabilité moom parce que tapas bi rëy na te ku tapas liy trouble à l'ordre public la bu ko def dañ laa war a jële mën a teel tëj la ci kaso bi parce que yaa ngi def provocation góor ñi na jël ay responsabilité sinon lu ci am ñoo ko dañ responsable parce que ñee ngi provoqué ñit ñi ci seen pas-pas ñu toog di leen xool te pas-pas dafa sensible dëgg waaw ok loolu mooy message yu Adama euh, ak euh, Cheikh Oumar Euh, collectif ànd mu jikko yi maa ngi fàttali des fois ñuy wax naan non bi leen wax dañu ni dañu leen seen ci affaire pétrole et tout mais lu waa ji lu dul diine diine moo ko gën man bu jigéen bu ñu fi ndaree des man soxla moo pétrole Sénégal man doyoo moo ko dara man teraanga Sénégal doyoo moo ko dara bu dee góor jigéen dañu nar a am baat fii nii na loolu leer parce que ñun tey li xeex ni yëpp valeur diine moo ko ëpp solo tey sàcc yi ngeen gis ñu nekk ci bopp réew beeg góor si ngeen di gis ak yëpp valeur mooy yàqu moo tax ñuy sàcc pétrole mu ñu xeexoon ba valeur taxaw diine am doole kon kenn du sàcc sunu dara donc nan la Wally Seck man maa ko défier man nañu nee na imam Dianko xaw ma imam Kanté nee na Wally Seck góor jigéen ñuy def mention interpellative man maa Wally Seck góor jigéen la nañ ma indil mention interpellative nañ ma ko indi ma leen di xaar bu attaqué leen ñu ngi leen di xaar ñu ngi xaar képp kuy sol t-shirt drapeau góor jigéen Sénégal nga xool jigéen la papaam jën loolu ah. ma si boole citation maa ngi koy xaar ma tamit li maam Kanté uh-huh. Wally Seck góor jigéen la mooy promouvoir la dafa leer ñu ngi leen di xaar ah, lépp lu mu aajowoo lépp lu mu aajowoo ñun pare Sénégal góor jigéen du fi am su billaahi wallaahi suñu bakkan leen di jox suñu bakkan lañ leen di jox képp kuy defal Wally ak statut boo mënti am Sénégal ñun faale wuñ la ñun incha allah dinañ ko défendre ni ko Serigne Touba doon défendre dañ ko défendre ni ko mag ñi doon défendre ak Malick Bagnès dinañ xeex ñun du ñu war mag ñi léegi topp leen ay waykat ay waykat yu ñàkk fayda ay consec ay trafic phobie ay nit yu ñàkk personnalité di dooleel góor jigéen di pervertir xale yi ngeen ànd ñoom leen défendre massa ñun ñuy defaan dëgg ak diine massa ñun ñuy defaan dëgg ak diine du waali kese instant moo nekk di waali mooy bi instant bi bëgg may doolee ñu koy jël ba nga dañoo wan ne xaalis amul couleur te amul odeur mhm. amee ñoom ñooy ñëpp see yàq lépp luy donu bu ñu jot suñu mag bi ñun dañoo taxaw temm nag jàmmaarloo ak ñoom ndax suñu Sénégal bii valeur yi nga wax ak pas-pas ak euh, doo jikko yi sel nam moo ñu ëpp doole pétrole moo ñu gël ay or ay jamaa bu mënti doon lii du ñu nangu génération bu bees bu inconsciente génération bi xam génération ay bus ñu bëgg di ko ndax xaalis wala ñu ko nangu dëgg la jërëjëf waaw suy léegi dafa leer dañuy xaar nag dañuy xaar ba kenn ku fi sol ay tiset shirt drapeau góor jigéen yi naan day promouvoir dara xool na am affaire ak ñun na ko wax na ko gendarmerie jël na ko procureur de la république na ko justice sénégal bi góor bu jàpp ku fi sol t-shirt dañ lay rey dañ lay billaahi dañ la dóor ba nga dee wala leen rey ñu rey leen jërë ngeen jëf sama labaar suur ko ci asa jikko la woon suba vingt euh, ñu ngi xaar préfet nag suba vingt ñëpp ñu ngi fi incha allah te ñu ci nag lii moom amul sikk sàkk